Sika, société de produits industriels et agricoles dont l'usine de fabrication se trouve à Louga, spécialisée dans la formulation et la distribution de produits phytosanitaires, de semences, d'engrais et de matériel agricoles Pour vos semences, nous mettons à votre disposition des semences de marque Monarch, pastèques, melons, tomates, gombo, oignons violets de Galmi et autres de haute qualité. Les fongicides Spicem C les nématicides pour le traitement des sols, les insecticides, les herbicides, Actélix Super et poudre SPIA pour la conservation des stocks, les engrais foliaires avec la marque Koda. Nous avons des partenaires de renommée internationale, dont Arista, Life Science. Et nous sommes leaders sur le marché local avec 50 magasins de vente couvrant le territoire national. SPIA au service de l'agriculture et du monde rural. SPIA VDN Ouest Foire, téléphone 33 869 32 69. 33 869 32 69. SPIA depuis 1980, certifié ISO 9001. La Société africaine de négoce et de distribution, ou en abrégé Négodis, est une société commerciale qui a été fondée en Et comme son nom l'indique, euh, elle a une vocation africaine d'abord, et elle intervient dans la commercialisation et après l'importation de produits et matériel dans les domaines suivants. Premièrement, euh, dans le domaine de l'agriculture, où nous intervenons de la préparation des sols à la récolte et à la transformation post-récolte en passant par toutes les étapes, y compris les semis, la maîtrise de l'eau avec le pompage, l'irrigation. Ensuite, nous intervenons dans le domaine de, de l'énergie de manière générale, donc pour toutes les énergies thermiques et renouvelables, nous commercialisons des groupes électrogènes, nous commercialisons, nous commercialisons du matériel solaire, c'est que le matériel de pompage, le matériel de chauffage et de chauffage solaire, ainsi de suite. Nous avons également un département qui s'occupe de la fourniture industrielle et maritime. Nous fournissons à beaucoup d'entreprises et à, la, à, beaucoup de sociétés qui interviennent dans le domaine maritime du matériel spécial. Et enfin, euh, nous avons créé en 2011 un département euh, informatique qui est délocalisée et qui la commercialisation de matériel et en informatique et qui est basée à la Russie, Sangle 27. Notre vocation africaine fait que nous intervenons naturellement dans plusieurs pays africains en plus du Sénégal. Et comme l'atteste notre chiffre d'affaires qui est réalisé à plus de 50% sur l'export. Au Sénégal, nous avons comme référence beaucoup de projets euh, gouvernementaux tels que le PADERCA, tels que le programme, que le PAPIL, où nous avons réalisé euh, plusieurs contrats à la satisfaction de nos clients. En dehors du Sénégal, euh, nous intervenons principalement en Guinée-Bissau, où nous avons comme partenaires la FAO, le PNUD et beaucoup de projets financés par la BAD, la Banque africaine de développement. Nous intervenons également en Guinée-Conakry pour le compte de l'Union européenne avec euh, quelques ONG euh, qui sont financées par cette même Union européenne. Et récemment, nous, euh, nous avons euh, réalisé plusieurs contrats en, en, République démocratique du Congo en Afrique centrale et pour le compte de la coopération technique belge. Nous pouvons citer également euh, des marchés que nous réalisons en Côte d'Ivoire, euh, au Burkina Faso, au Tchad et même au Cameroun avec notre partenaire italien qui est la société Oscar Italie. Comme nous sommes une société tournée en premier vers l'agriculture, notre partenaire naturel et le monde rural en premier. Et donc, euh, en collaboration euh, avec le monde rural, nous fournissons du matériel de la petite mécanisation vers celle-là qu'on peut qualifier de grande mécanisation. Ça veut dire, nous partons du petit matériel aratoire vers le gros matériel tel que les tracteurs et les moissonneuses-batteuses. Donc nous intervenons dans toutes les filières de production agricole, la filière riz, la filière tomate, la filière arachide, etc. Comme deuxième partenaire, nous pouvons citer les projets de manière générale, donc les projets gouvernementaux et étatiques, euh, qui sont nos partenaires privilégiés également, en ce sens que nous intervenons beaucoup dans, dans les appels d'offres Euh, lancé par ces organismes et euh, nous faisons une bonne partie de notre chiffre d'affaires donc avec les partenaires euh, au développement. Et également, nous livrons du matériel, surtout dans le domaine de l'énergie, au foyer de manière générale. Nous sommes dans les groupes électrogènes, nous sommes dans le matériel solaire, nous sommes dans le pompage, dans le chauffage de l'eau, etc. Donc les foyers également constituent une clientèle privilégiée pour la société Négodis. Ce matériel m'a donné actuellement entière satisfaction. Sur le plan rapport qualité-prix, par exemple, euh, j'ai eu entière satisfaction, euh, absolument. Je suis totalement satisfait de, des performances de l'appareil. Ce que je regrette, peut-être, c'est de n'avoir pas <laughs> connu plus tôt. Pour tous vos besoins en matériel technique, Négodis est disposé à collaborer et à vous apporter le, le, la satisfaction souhaitée. Notre ambition étant d'œuvrer à la satisfaction de ceux qui nous font confiance. Thierno Ndiaye ngañ jaañ fii ci stade Maniang Soumaré ñuy présenté ñaari mbër yi Boy Noto Boy Noto ak Boy Saaw ñooy bëre premier combat bi arbitre sifflé na premier combat bi diggante booy Saaw bu Noto ak euh, Boy Jaxaaw bu Samba Diaw joxante nañ benn distance boo xam ne c'est pas réglementaire ci ñoom ñaar waaye xam nga xale yi ak maman yi lu ne fem bu ne dinañ ko indi ci làmb ji booy jaxaaw toj na nen seen nijoor booy saawoo seen càmmoñ ne nag jeex na ba mu tojee nen ba def ni gars yi jeex na distance réglementaire baa ngi léegi waaye di ngeen booy saawoo dox na wuti booy jaxaw waaye dafa taxawaat booy jawaa jaxaaw ma ngay jat rek ngañ lu muy jat waa de léegi dem na déplacé na déglu na ko ñëwul léegi attention ñu ngay leewtoo booy saaw moo ñu wan ginnaaw booy jaxaw jox ñu kanam moo ngemb ngemb lu wer ci li nekk écrit Samba Diaw takk sengoor gu weex gi ca kaw ngemb la ak tere dàq ñu ngi lew too ñu ngi ñoom ñaar ñoo ngi xoolante ngañ moo ñi lu ñu namm ñii ngañ daf mel ni dañuy dañuy danan saf salu ñoom ñaar daja de boo xoolee Cheikh Thierno booy saaw mi ñu wan ginnaaw moo bëggee a diriger bi te xamagul fan la yow waaw mais ndax du dem dem bu xam du xam dem bi demu lan la mbaa ñu egsi ci moom mbaa ñu fëgg ko te du ko yëg. gardu gardu gardu adversaire bi di booy jaxaw garde ba dafa baax parce que booy booy jaxaw actuellement dafa tëj bërëb bi moom moo bëgg a dem ki ñu wan ginnaaw moo bëgg a dem waaye xamul fan lay jaar xamul ndax dafa xeex doog a dem xamul day yooru dem. bu yoroo baaxul su saftaloo soog a dem nag ndax bu saftaloo duñ ko ko delloo. buñ ko ko delloo nan lay ñëwee ak nan lay demee saf ñam na waa ji booy saaw léegi ñam na ne xam na ne gardu gardu adversaire bi baaxul booy jaxaaw fëgg na ko léegi de fëgg na ko mais booy jaxaaw gardu gardu gauche bi baaxul déedéet da koy dindi booy jaxaaw ko koy fëgg waaw dellu ginnaaw jël ko dafa ko waaw dellu ginnaaw ñu sañaxal ko voilà gis nga public bi Boy Sawo dan na ko bu nooto daan na ko jël bu rëy jël drapeau Ibrahima Faye Boy Sawo nan nga bëree ba daan sa adversaire bi xam ne mooy Boy Jaxaaw gannaaw bi ñu sante yàlla julli si yonente bi maa ngi sant sama ñaari waajur bu baax man père xoolal sama yaay fa sonn ci man billaay dama am soom papa xoolal ma jël combat sama papa dund lu yàgg gaañu dama bëggoon sama papa fekkee lii tey ndaxte dafa bëgg a làmb da ma rek mu ni ma xoolal da nga opté di nga doon mbër yow moo ñëw xoolal di reyante ngir moom far nag demul fenn sama papa gaañu loolu moom moo gën a trompé si combat bi waaye maa ngi ñaanal sama yaay bu baax mu yàgg dund di ñaanal sama waa dëkk waa saaw dañ maa jàppale bu baax a baax maa ngi ñaanal waa ñàgg bu baax waa ñàgg dañ maa jàppale si combat di ñaanal samay ndijaay yi jàpp si combat bi waa kër Malal waa kër Seyni waa kër Dembali ñëpp jàpp nañ sama combat père. ndeysaan ñu ngi présenté ñaari mbër yi guy gi numéro 2 ak Garga. voilà guy gi numéro 2 googu alaaj Cerno moo nekk Lamp Fall Garga moo nekk ju Cheikh Mbaba jóge Ndakaaru waxoon na ko. Mbamba. nee na ko danga ma xeeb ca ca signature bi ne woon na ko danga ma xeeb xaw ma nag lu ko lu ko lu ko guy gi xeebe. xeeb felñent mu lakk sax dàgg dafa waaye dafa mel ni day guy gi ne woon ko du ma sa morom yow yow lañ ma la indil. voilà drapeau monsieur ministre des forces armées Cheikh Thierno arbitre sifflé na. génn seen diggante yéen a ko déggandoo ñun ak yéen a ci yam ku sifflé baa ngoog ku nekk ngay jat di mee ngi jat di léemu deful na turandoom di def di génn waaye mi ngi taxaw di jat di léemu gëdd garga garga résisté garga taxaw na guy gi xeex naa moom jaar nañu kor na ne newoon na ko duma sa moroom garga ni ko dang ma xeeb te koo xeeb mu yab la mu bañ mu bañ war na ko ndombo mu bañ sajja na ko sajja na ko waxoon na ko de sajja na ko bëre bu on déko bu rëy la bëre ak moom may ko temps d'arrêt déedéet enchaînement rek mbër day enchaîné waxoon na ko du ma sa morom da nga koy jëfe jëf na ko guy gi gargaa nga ci géew ba di bañ ba léegi noo ko daane waaw lamb la rek moon la maa daan moon naa ko daan dafa waaj mbokki mbokkam ma waaj samay mbokk lamb la nag moo demee nii quoi amul problème da nga ni kon du ma sa morom waaw loolu laa waxoon père bi ñëw na keroog si ñaari waxoon naa ko nee ko gën grand combat bi sax ñi bëre grand a daan naa leen dañ ma jox si mbër yi mag yi maa ngi sam bi mooy sama dixième combat dix victoire benn defet victoire noo ko daane dama ko jël jël tànk bi bëtt ko wër ko ndomba wër ko ndomba arbitre daa waroon bàyyi may yëkkati ko dama ko naroon yëkkati ba ci kaw dóor ko suuf xoolal xoolal ba sama supporter yeeg Michel jëlal ba sama supporter yeeg sama supporter dañoo sonn ñëpp dañoo mobiliser sama waa koñ ñëpp maa ngi sant ñu ma bi. mbokk yi combat bi ci géew bi diggante Turbo 504. combat bi góob ñu sufle ko voilà ñu xaar tuuti voilà ñu xaar tuuti. Turbo 504. Turbo 504 voilà. ñu ngi signalé ne landing dafa fa feebar. waaye gisaguñ ko ñu xaar tuuti. cas majeur la xanaa ménagem du ñëw di wax. ak président écurie ak secrétaire général ba war nañu ma indi certificat médical bu xam ni day justifier ni dafa feebar loolu la règlement bi wax. monsieur le directeur technique. merci beaucoup maa ngi superviseur lamb bi tey effectivement dama présenté léegi benn euh, rapport médical bu mbër bi montrant que ni mbër mi mënu la euh, mënu la bëri am na rapport médical cinq jours alors moo tax ma notifié la ne euh, mbër mi ñëwul kon y' a pas combat. turbo intercolaire. nga ne yaay kan yow. man maay turbo intercolaire. tey yaa waroon bëre ak. Landing Diamé numéro 2 mais dafa daw. dawul dafa feebar. certificat médical baa ngi nii maa ko gis ak sama bët. man su ma neexoon ma déggoo certificat médical li ma dal ba ñëw pour bëre moom xam naa ne bu ko daloon non leneen la ñuy wax man maa ko a feebar man mi ñëw. dama ko waxoon lu leer signature bi ni ko dinaa la wan ni la mën mënoo bëri amoo doole dama ko bëggoon fekk ci dëkkam duma ko daan ko. ay mbër yu garaaw ñu mooy xale bi ñuy wax turbo inter turbo inter turbo jox nañ ko victoire daan docteur Augustin coordinateur de la paix à Thiès doyul mooy ministre des forces armées doyul de waaye lépp bi fii ci Thiès ak li ko wër juboo naa ak ñoom ànd naa gis ñoo ni ko gars yi daree ñoom Abdou Mbow ak ñëpp ñëw nañu te Abdou Mbow jox lu rëy député à l'Assemblée coordinateur APR ci Thiès Est waaye moom it lépp lu mu mën a doon ñëkk na ko ànd ak daal di jox boppam nag mooy son excellence monsieur le président de la république di Macky Sall xam nga délégation bi mu àndal moom monsieur le ministre des forces armées ànd ak délégation mu mag lii mooy wane ne Thiès président de la république moo ko dénk ndax tey mooy coordonnateur APR fii ci Thiès tey moo fi teewal président de la république kon ak gouverneur ak ñi nga xam ne ñooy autorités yi nga xam ne ñoo nekk Thiès ñëpp ànd ak moom service service yëpp ànd moom mu ànd ak ay naataangoom député yi tamit ànd moom vraiment délégation bi am na solo. Ah, ah oui ah oui ah oui. ngañ ngañ lii ci ay oto lii ci nit. ngañ daal fa nga dëkk fexeel ba dëkk ba bëgg la waaye fa nga dëkk soo sàgganee ba dëkk ba gedd la te sa jikko la waaye du sa judd moom Augustin Senghor ministre des forces armées coordinateur Augustin Tine waaye Augustin Senghor président fédération mon ami waaye bii nag Augustin Tine mi nga xam ne mooy ministre des forces armées nga xam ne mooy coordinateur APR fii ci région de Thiès wane na boppam de ànd naa Thiès yëpp Thiès yëpp ànd ak moom mu ñëw ni mu fi toogalee son excellence le président de république ak gouvernement am noonu la teewal Abdou Mbaye teewal gouvernement bi yëpp foo waxee président wax premier ministre foo waxee premier ministre lim nga gouvernement. bon nga ba pare après yow nga xool nga baax. te doo mel bi mën naa région bu mag bi fi la jandeer bokk fi la Abdourahmane Ndiaye feeñe alxamisu puut la Baye Modou Kane ko feeñan xëy dem wax ko Yaxya Diop xale ba na juge voilà consulté na juge moom arbitre bi consulté na ñaar mbër yi arbitre sifflé na Cheikh Thierno am na lu ko jël Saliou Faye am na lu mu ko jëll moo ngemb ngemb lu ñuul li féete càmmoñ dem Thierry numéro 2 féete nijoor dem Thierry waaw nee na ñoom mooy Setu Mbay Ja Setu Mbay Ja di Setu Abdourahmane Jaay Falang Setu Mbay Ja de xam naa ni mooy sët mooy sët kër ñu Abdourahmane moo féete nijoor ndax Falangay nijaayu Mbay Ja ñoom ñaar ñëpp tibb suuf xale ba wàcc na moo féete ndi jot attention door na ko arrêté door na ko arrêté waxoon na ko de waaw waay na ko dañuy xeex de mais arrêté arrêté arrêté arrêté arrêté coup coup attention daw di jël ko riñaan na ko attention wañ na jàpp ko attention añ na ko wañ na ko Saliou añ na ko wañ ko wañ na ko mu wañ na ko mu koy forcé Saliou Faye Saliou Faye jëm ceeri numéro 2 di seeti Abdourahmane Ndiaye Falang fii ci stade Maniang Soumaré voilà ña nga jàppante Saliou téye na attention da ko bëgg a forcer doole moom Saliou. doole ñu bëre ci dooleem. waaw mu ñibbi waaw. <laughs> ngañ dem bëgg a waaye yaakaar naa xale bu mel nii xel nga koy jaay. doole da ngay doole day ànd ak hmm, ñibbi. voilà ndenge ñente nañu ñoom ñaar ku ci ne yaa nga saj sa morom te ca ngemb la. waaye booy xool jam ceeri ma nga téye ci biir ngemb la te poxtaanu ngemb la la dafa sëq sëq suuf la sëq dafa sëq ngañ ay sëq te nag bëgg naa bëgg naa ñaari mbër yu jàppante loxo féete biir de waaw ah ngañ ñu nekk fa ne loxo bu féete biir laa bëgg de xale mën na faam xale bi xale bi xale bi néew na néew na yaram bi néew na waaye doole yaa ngi ca biir foo meegar la mu ngi koy jéem a bët attention mu ngi koy jéem a bët mu ngi koy jéem a bët attention mu ngi koy jéem a bët Saliou bañ na Saliou bañ Saliou wommi na ko wallaay wommi na ko waaye ko waaye waane waane mbër la am jëm teeri waane mbër la deretu mbër gi deretu mbër gi nawet boo gis maam ja lay nuru Mbaye Diagne Abdourahmane di say maam buddi na ko na ko doon na suuf waxoon na ko waxoon ma ko nii la ma ko waxee nee na ma père tey ngay xam ne maa mën a bëri. ak kii dafa donn lii kii a donn falang. xam nga daf ma ne woon ca signature ba. père man dañ ma préparé pour ma ñëw jël làmb ji. Ah. ma ne woon dañ ma préparé pour ma ñëw jël si làmb ji. Uh-huh. defe naa ne moo du kan dabe woon Abdourahmane Ndiaye ca Pout. Uh-huh. Saliou Faye dabe ko ko moom fii ci Thiès. Uh-huh. indiwante histoire Cheikh Thierno ma bàyyi la xel. Saliou maa ngi lay nuyu. waaw père maa ngi fay di ñaanal yàlla fan wu gudd ak wér yaram ak sama papa Ngañ ndax dama leen a yàgg siibur ndax sama papa dafa bëgg làmp bu ne ma naa si naay xool si yéen ñaar li ngeen di wax si làmp ndax comme ni ngeen koy waxee mbër du kilis ak ak ak di bàkku bàkku cosaan ñun loolu la ñu bàyyi mbay di jàngal ay ay ñoom di sant nag sama gaay yëpp di sant waa Tundu Jandeer képp. wala ngay sant maa ak yow. dañuy wax dama bëgg nga wax ma fan nga doonoo mbër gi ci ndey la ci baay waaw man sama papa du mbër sama yaay du mbër dugg si làmb ñu bëri dañ ma waxoon jaru ngay dem ndax amoo doole amoo taay bay jasalan après si laa dooga dem si baay mbay man ne ko amu papay mbër amu baay mbër waaye doy nga ma papay mbër doy nga ma yaay mbër te xam naa ne fulla yaak fayda ji ak jom mu ngi si man te bëgg naa la sama maam man maa doon falang ak Mbaye Diop ndax. ak Mbaye Diop Ndiaye ndax Alassane Ndoye président. waaw waaw mooy député. bu mu taxawee ma ne ko père mu ne ma ma ne man maa doon mbërëm jëndeer si kanamam moog Baye Mbaye Diop ku nga gis champion jëndeer ëllëg xool ma man sigil jëndeer moo ma ñor. Hmm? barke Serigne Touba sigil jëndeer laa jógee. ay ngañ. ndax jëndeer instant bi nii amuñu mbër si làmb te jëndeer doo war a dem fu sori si làmb. billaay yow yaa doon kan. Balla bi mu daanee dama ni yaa donn kan. man maay donn Mbaye ak Fala. Mbaye Gueye Ndiaye ku ko donn. Mbaye Gueye Ndiaye ñëpp maa leen di donn. ku donn Lamine Ciss. man maay donn Lamine Ciss. ku donn Mor mbay man jamteeri maay donn Mor Mbaye. kan mooy donn Mouma Jandeer. man mii maa koy donn man. kan mooy donn Mout Jong numéro 1 bu Jandeer. maay donn Mout Jong maay donn ñëpp. Jandeer gépp sax. noo ko daane. dama ko jàpp mu may imposé bëre ma bàyyi ko ak sama poids di di ma xam ne kii force am jéena ma jàpp ko bëtt ko yanu ko. bi nga ko yenoo noo ko def. dama kaa yenu ba biir bi weex ma dóori suuf waxoon na ko ni si ma ni nga jambeel Dakar te naan buy borom nag jël nay nagam. nga ni waxoon naa ko jambeel Dakar te naan buy borom nag yi jël nay nagam. waaw moom laa doon firndeel nii kon sàmm bi daal am na droit maye mais waaye amul droit jaay jaay jaay lenn. amul droit jaay na de nga ne Balla Gaye nga ne Balla Gaye Balla Gaye daanee Tyson suñu kër ñëpp daw yox sama mag mu nga nee di ma gis ma taxaw si télé bi jooy ne ma looy jooy mu ne ni barke Serigne Touba ak waxtu bii nii. nga bëgg. mu ne bëgg moo tax nga ñëwee mag laa ka la père ñaanal ma ma doon roi des arènes. maa ngi sant tundu jëndeer gépp di waa Kayar di sant Moniru waa Tëddeem waa Thiaye waa Kemaay Kën Mbir ba waa Mbijëm waa Tëddeem waa Toor waa Jëndeer waa Ndaam di sant bu baax di waa Njër Muri Njër Dijaan Njëgën Mbisaaw Kër Matar waa Bayax waa Golam di ñoom Mouhamed gaa di sant waa Béer di sant waa Mbijëm gépp di sant président Alassane Ndoye moom mi nga xam ne moo ñuy jàppale si lépp di sant sama maire wala Sarr maire Khady Diop ak maire waa Mbijëm yëpp gis naa ni ñu ma taxawoo gis naa ni ñu ma jàppalee di sant père Moniru moom mi dox combat ba mu am di sant ñoom Thialé ñoom Mamor ñëpp ak Mbaye Samba benn boobu duutu Mbaye Samba sànq la daanu feenee barke Serigne Touba lu ne jaral naa ko ñoom Sadi ñoom Assane di sant sama yëpp ak waa di sant sama papa ak sama yaay nag billaay wallaay maire Wara Sarr dafa sonn si ñun maire bi ñuy toggal ñuy lekk wóor na yàlla dafa sonn ñun yéen nag fa ngeen bëgg a na ko may victoire bi. waaw victoire bi nag kii garga garga laa koy may sama benn booy bu tudd booy put bàyyi seen war lépp mu egg am defet loolu man moo tax combat moom laa ko doon bëreel may naa ko combat bii nii waaw ak ak bàyyi mbijam yëpp gis naa ne may jàppale waa mbijam gépp tund jandeer gépp bàyyiwuma kenn ki nga xam ne mooy mbanam mooy mbanam ndaw nga xam ne tey moo fi teewal ki nga xam ne mooy euh, docteur Demba Diouf euh, tey lan nga lan nga combat bi ñoo ko seetaanandoo keroog ñoo newoon ci signature contrat bi am na lu xale bi waxoon. waaw asalaamaaleykum ginnaaw bi ma sant yàlla julli ci yonent bi di am mbégte ak kontaante teewal fi professeur Demba ci drapeau bi nga. promoteur de l'espoir tuddee muy Fallou Faye di gërëm suñu coordonnateur départemental docteur Augustin Tine ministre des forces armées di gërëm président bi nga xam ne moom moo ñu dénk docteur Augustin Tine ndax réerul kim ñu dénk di la coordonnateur départemental dafa uuf ñëpp docteur Augustin Tine heure bu xëyee mu ngi def lu dajale nit ñi heure bu xëyee mu ngi def lu jëmale Thiès kanam lu APR amee doole Thiès kon ñu ngi sant président bu baax ci coordonnateur baax ñu tànnal muy la code muy le ministre des forces armées docteur Augustin Tine bu ma jógee si moom di gërëm di sant sama responsable di la professeur Demba Diouf bi nga xam ne moo nekk coordonnateur Thiès Ouest moo nekk ci ginnaaw magam frère am xaritam di ko jàppale ci liggéey bu rafet bi muy def muy docteur Augustin Tine Demba Diouf mooy le directeur cabinet des forces armées du docteur di wax président ne ko Thiès moom na xelam dal ndax Thiès yëpp takku nañ taxaw pour nekk ci ginnaaw Augustin Tine jàppale ko ci li ñuy jëm si ni muy élection locale yi ak élection présidentielle yi nga xam ne dinañ ko falaat fii ci Thiès ndax Thiès def nañ seen choix te choisir nañ ko moom président Macky Sall ndax gis nañ programme am doy nañu te xam nañ fi mu bëgg a yóbbu Sénégal neex nañu li muy def doy nañu kontaan nañ ci ñu ngi koy félicité di ko encouragé. noo noo gisee combat bi di félicité nag le promoteur de l' espoir muy Fallou Faye lii muy def di yëkkati suñu cosaan dañ kontaan trop. ndax ñun amuñ lu dul làmb làmb la ñu am mooy suñu cosaan ku ko bëgg ñu bëgg la te lii mu ñu defal dafa rëy lool ci ñun ndax bari na ñu ko waroon a mën a defal defalu leen ko mu tànn ñu ñun kon ñu koy gërëm di ko sant di ko encouragé di ko félicité di ko wax ne ko na dem rek ci kanam ñu ngi ci ginnaawam jërëjëf Fallou. noo gisee combat bi komba bi euh, defe naa keroog waaw xanaa kontaan waaw ndax euh, li wax jëm jéeri li mu wax confirmé na ko ndax nii la ko waxee woon keroog que ne dinaa ko daan waxoon def na ko vraiment félicitation kontaan nañu ci lii def yàlla na la jig ak jàmm te mu sedd guy yàlla tegal la ci ndam yu bare bare bare trophée bi maa ngi koy mboy sama benn combat moo xamante ni ñoo doon préparé ndoo combat bi ba tey yàlla yàlla jël ko yàllaa ko moom nag moo ko indi woon ba mu koy indi tàgguñu jëlaat na ko moom siini la tudd siini siini Sarr ñu ngi koy ñaanal yàlla fa mu jëm yal na gëgënal fi mu jógee ndax barki démb rek mu may wax ni ma jàmm da nga am place bu réy kon bul triser entraînement tey yàlla jël na ko maa ngi koy may bu ba ak suñ benn mbokk bu gaañu ca dem te mooy di wax foofu ni que moo waral lii nii mais lii kontaan rek parce que ki nga xam ne d'abord moo ñu tuddi drapeau bi muy sëñ Fallou Faye dañu àndoon démb tey doog a ñëw donc tey lii bu amee amee encore fi nga xamante ni foofu lañu am amuñu lu ëpp Thiès dañuy kontaan lool looloo tax tey jii ñu am mbégte am kontante aussi ñëw teew fii parce que comme ni ma koy waxee souvent nit ñi dañuy wax ne làmb ji euh, am na noo xam ne war nañ koo doxale man dama jàpp ne làmb ji dañu leen war a gën a jàppale ndax nag emploi yi ñuy wax dafa nekk secteur boo xam ne dañ ciy générer emploi parce que dafa ndaw ñi dañ ciy daan seen doole di ci am ñaq te nit nag bu ñu dee am ñaq ci mbir yaakaar naa ne ñoo ñu war nañ leen mën a jàppale te ñun en tant que jeune dinañ gën a jàppale ñi nga xamante ni ñoo nekk ci làmb ji promoteurs yi aussi parce que nag aussi liggéey bi ñuy def am na solo dinañ leen gën a jàppale tey daal am nañ bégte lool ñëw teew fii di féliciter aussi ki nga xamante ni moo tëgg mbir mi muy Serigne Fallou Faye di ko encourager di ko wax na dinañ gën a nekk ci ginnaawam jàppale ko di wax rek ñi nga xamante ni ñooy bëree euh, drapeau bi ñu am fair play seen biir maanaam làmb dañ ko war a def te du am violence làmb dañ ko war a def te ku ci nekk boo parce que il faut mu am ku gagné am ku ñu gagné ki gagné félicité ki nga xamante ni moom la gagné ki gagné ki ñu gagné encouragé ki nga xamante ni moo gagné loolu laa leen di lancé comme appel di leen wax bonne chance ñoom ñaar parce que ku ci nekk mérite am nga mérite parce que ku ñëw ba fii am nga mérite pour gagné li nga xamante ni mooy drapeau bi euh, voilà dañuy euh, terminé parce que mënuñu ko woon commencé parce que chaque jour loolu la ñuy terminé terminé di sant suñu kilifa parce que loolu suñ koy terminé moom mooy moom dafa am fu mu ñu féete muy le président Macky Sall parce que amuñu lu ëpp président Macky parce que nit nag boo santul nit doo sant doomu aadama te tey yàlla dafa def ne li ñu yor tey ci loxoom la ko yàlla jaarale parce que àdduna euh, mook looloo ànd ku nekk nag sa wërsëg ngay jël suñu wërsëg tey ak li nga xamante ne loolu lañam ñu yàlla ci ay loxoom la ko jaarale ñu koy ñaanal yàlla dëgëral ko parce que mag dafa am mag muy wax ne soo nekkee ci réew réew mi am benn kaas kaas ba ñëpp di ca naane bul ñaan yàlla kaas ba toj ndax kaas boobu tojee réew ma ñëpp dañuy mar te benn nit la ñu am koo xam ne war nañ ko mën a jàppale muy le président Macky bu jëmee ja kanam Sénégal jëm kanam ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp Thiès c'est une région difficile li Fallou Faye def tey yombul dajale la jeunesse thiessoise te président Macky dafa ne nañu jigee la jeunesse thiessoise su neexee yàlla dinañ gën a jàppale promoteurs yi jéem a dem si politique gu président Macky Sall yoo xam ne jeunesse yi si si euh, axe programmatique am yi la jeunesse la wax avant tout maa ngi leen di sant di leen gërëm ñi ngi ci avant dernier combat bi ci diggante Baba Galle ak Dégol bu Ngoy Cheikh Thierno Ndiaye Dégol bu Ngoy moo féete càmmoñ Baba Galle moo féete ma jaaxal de mooy Dégol sutoon gaa yi waaye Dégol mi sutul Baba Galle Baba Galle am na lu mu ko jël nijoor nee woon na ko kenn mënu ma kenn mësuma daan Thiès arbitre sifflé na Baba Galle kabar na Dégol kabar tabarante nañu daw nañ daje waaw waaw Baba Galle daf ne day xeex rek déggoo jàppoon nañu mën ko ñoo ngi rogante ñoo ngi rojante ñoo na kenn kenn kaa ngi wut bëre bi déggoo la ngi wut bëre Baba Galle bañ Baba Galle dugal na loxo bi wommi loxo ba lan mooy moo nekk suñu nijoor jargan daloon nañu dëggool dëggool li muy wut sori na de ngañ dafa sori te Baba Galle jaxran jaxran jaxran jaxran ñoo ngi ni tekk ñoom ñaar ngañ mbàpp nañu mbàpp nañu ñoom ñaar fettiwaat nañu rëj rëj ji metti na da ko rëj na ko rëjatu ko waaw te ku ne nanguwu loolu Baba Galle Baba na ko rëjatu ko mi ngi koy rëj ñoo ngi rëjante ñoo ngi ni tekk déggool ñaari loxo ma ngi ci njembali arbitre bi àtte na am na lu xew. faju si Fallou yaakaar naa ne tey euh, bi mel drapeau Augustin euh, ministre des forces euh, tey nan nga yëg tey kontaan trop parce que def li nga war def ànd ak nga war a àndal muy Augustin Tine vraiment kontaan naa te wane na lu tax président Macky Sall jiital ko fii ci Thiès kontaan nañu trop parce que laa mujj mu fees vraiment sponsor yi nañu ak directeur général Cheikh Demba Camara tabarante nañu arbitre sifflé waat na nga dañu ñemeñante akante nañu daje akante nañu daje ñoom ñaar dégol teene ngembal doon ko wicc Baba Galle bañ Baba Galle da koy gis jaxran intelligence euh, da ko xaw a dafa xaw a intelligent euh, tamit Baba Galle. waaw. voilà attention fii ci nag moom mu bañ. day gis. mu ngi koy takk dëgg la na bañ na bañ na bañ na. Baba Galle bañ na. waaw bu yël boo day rëcc. yëlëbu la am na xelum bëre. xelum ndax lu lu dëggoon laal rek mu lalli. waxoon lu mu fiir mu teggi. takk na ko de bal na loxo ba ci digg ginnaawam mu wommi ko complètement génn mi ngi koy gis dégool fi nga bëgg a awalee sa loxo baaxul dañu nawlante dañu nawlante ngañ dañu nawlante ñoom ñaar tell lan mooy am lan mooy lu mu teg mu teggi ngañ ngañ bëree ngoog ah, làmb da ngay làmb rek boo làmbee mu nar a ki nga teggi eh Baba Galle dëkkam la ne ah, jaral lu ne dëggal force na action ba Baba Galle bañ na waaw de Gaulle loolu la doon wut Baba Galle rëcc lan moo ci am lan moo fay am daan na ko daan na ko Baba Galle daan na ko oh, daan na ko jëli la ilaha illallah Baba Galle ay Baba Baba Galle dafa langaan rek dafa langaan ci bërëb bi mais woon na ma père ma tax bëri ci Sénégal voilà Fallou yaa ngi am na foo nekkoon ci waxtaan waaw fi ma nekkoon mooy euh, di sant sama sponsor euh, di ci jiital euh, SPIA bi nga xam ne Cheikh Damba Camara moo ko jiitee muy directeur général bi di ma jàppale bu baax a baax a baax di ci tëgg aussi euh, port autonome de Dakar ndax lam ji boo xoolee réussite bi mu defi tamit vraiment sant yàlla Cheikh Kanté jàpp na ci bu baax a baax ak euh, Doudou Condé négodis di sant aussi vraiment ñëpp ñi nga xam ne de près et loin jàpp nañu ci ba lam ji exhiber sama parrain yi nag euh, docteur Augustin Tine ministre des forces armées jàpp na ma encadré ma comprendre dama ko wax léegi boo àndee ki nga war a àndal am li nga war a am def li nga war a def sant yàlla di sant yeneen parents yëpp comme euh, Abdou Mbow bu Njegéen docteur Ndiaye ak Ibrahima Faye di leen sant ñoom ñëpp vraiment kontaan naa parce que boo xoolee la ma doon def Touba Toul di ñëw ba egsi fii kon sant yàlla maa ngi gërëm waa cees ñëpp di gërëm sama partenaires yi yéen TFM aussi nag di leen euh, sant leen gërëm parce que yéen a may gunge yéen a ngi may jàppale ba mu mën a egg fii ma egg vraiment kontaan nañu trop. jërëjëf Baba Galle nag daf ma ne woon am na tant de combat fii ci cees ne ma per découvrir gul ma waaye di nga ma découvrir tey li ma waxoon na gis naa ko ci bëre li ma waxoon ci calcul gis naa ko ci biir bëre bi nee naa la mbër muy calculer la te moo gën a intelligent adversaire. il est serein. parce que dama gis lu xale bi dina mu teggi ko ba pare na di ko jox wet gi. ndax gis naa ne sax mboot mboot mboot moom mu bëggoon parce que dafa mel ni dafa ma a mboot waaye xale ba tamit day ndaanaan muy euh, dégool bu ngoy waaye daan na mbër waaye nee woon ne ma tey nga may découvrir moom Baba dama lay bàyyi ak Baba Galle waxoon nga ngañ ni dina di euh, fii ngay feeñee ñaata victoire nga am 17 victoire ñaata defet amaguma benn défaite sant yàlla dama dégg ñu ni da nga yaru lool ni nangu nga daan sa doole nangu nga ko boole ak métier mi di làmb lu waral loolu. waaw lu waral loolu mooy man damaa judd rek am jom man mën naa ne commerçant laa tisi laay jaay waa marché asalem ñoo may jaay tisi waa laamu bitik ak waa Zandaga ñoom Samba Kara waaw boo ma mayee ma gërëm may sant waa kër booy Niang di sant Ibrahima Xuma ak euh, Issa Poulo yaa ngi dégg. ak Omar Diko mi nga xamante ni mooy sama lépp di sant Cheikh Niang mi nga xamante ni su ma duggee ci laamu tey yàlla ak moom la di sant ñoom Mor Mbaye ak ñëpp di sant Aziz Khoulé sama benn waay bu jaay masa xel koom di sant Ndiaga nga xamante ni rakk booy Niang la lépp lu ma ko def ci man di sant Omar Diko sama grand Cheikh Niang mii su ma duggee ci moo ma def di sant Pa Landing ma koy ñaanal yàlla yàlla may ko wér Pa Landing Ñamme dafa feebar damaa bëgg ñu jàppale ko ndax dama dem këram këram dama doon jooy barki yonent bi waa làmb yàlla defkatu yu baax rek neel defkatu yu baax li rek. defkatu yu baax waaw. wala ni ñambe. suñu cosaan tey ku xam Cees xam Kajoor xam ne fii dëkku garmi la dëkku xeexkat dëkku bañkat kon su tey jii suñu fekkee indi nañ làmb fii ñun dañ ci kontaan di sant nag sëñ fàllu Faye ndaxte tey organisation boo xam ne dafa dekkal dëkk bi indiwaat làmb ci Cees dafa def jikko puso dafay ñëw delloowaat APR yëpp boole leen def benn kon moo tax tey daal ñu kontaan bëgg nag yàlla ñaan ko ñaan ñaan yàlla dem ba nga xam ne dina bokk ci nga xam ne promoteur yi gën a mag yi nga xam ne dina indi ba ay làmb yoo xam ne ay VIP mu indi ko biir Thiès yàlla ko yàlla def te loolu mën na ne. gannaaw ba ma gërëmee yàlla damay jëkk remercier Fallou fay muy organisateur bi félicité ko encouragé ko def na lu rafet lu rëy pour département Thiès Fallou yàgg na yàgg na engagé wu. jàppale président Macky Sall donc bu ma ooyee tey ci làmb ji ma bokk ci parrain yi ànd ci ak sama xarit l'honorable député Abdou Mbow ak sama rak bu Ndiéguène président conseil administration ànd ci ak sama xarit docteur Ndiaye ñëpp xam nañu li muy liggéey biir commune Thiès ñu am ci mbégte donc tey euh, mën naa wax ni am na mbégte bu rëy mbégte boobu nag dama koy delloo waa Thiès félicité waa Thiès ci mobilisation fàllu mes sincères félicitations di ñaan yàlla may la wér may la lépp li nga bëgg ci làmb nga am ko mais di la biral ni tey bés ni ki tey dinaa la jàppale ci làmb parce que li nga def lu rëy la dama ci am mbégte te di wax ni waa Thiès yëpp am ngeen un grand promoteur de lutte muy Fallou Faye di wax waa cees ni président Macky Sall mi ngi leen gën a sopp tey ni mu ko defoon démb tey la ko leen gën a sopp te pare na lu bare pour département de Thiès donc di leen tàllal loxo di leen wax ni tey APR ànd ci ak Benno Bokk Yaakaar ak ñëpp ñi nga xam ni fas na ñu yéene ànd ak président Macky pare nañu pour liggéey Thiès pour développer Thiès moo xam économie la moo xam santé moo xam éducation lépp loo xam li nga xam ni soxla nañu ko cees incha allah président dinañ ci taxaw dina ko jaarale ci ay yoon loxo yu set ñu mën ko liggéey. ngay fexe ba man koy wasaare jërale ko ñëpp sunu ministre Augustin Senghor Augustin Tine Senghor c'est mon ami de la fédération Tine c'est mon ministre des forces armées je vous respecte monsieur le ministre lii nga def yombul ànd ak un encadrement pareil une délégation si forte résistante bu xam ni dañuy wax toujours ni prêt et dévoué ci fii rek lañ ko gisee jóg ñëpp ànd ak yow loolu du ndaw ñaari mbër yi tey seen jom tey seen ngor tey ça va rester dans les archives ñun ñoo bëre drapeau Augustin Tine ministre des forces armées coordinateur de la région de Thiès bu APR ñu ne ay bis boobu nag mooy bis bu rëy bi booy nooto ñu ni kan la dajeel ñu ni ki nga xam ne nag mooy Isma Jara Soyez de grands lutteurs soyez des lutteurs du fair play et ñoo ngi di ñaan nag que le meilleur gagne. booy noonu ni joor ñu ngi leen di xool xool nañu. ndaw lu rëy ngañ. fii ci heure jot Mao voilà ñu ngi ci 19h55. 8h moins isma nekk écurie Lamp Fall ak Boy Noto bu rek énergie Cheikh Thierno Abdou Chiflé isma raxasoo na suuf tibbët jël raxasoowaat suuf dox na ci kawam Boy Noto ku ci nekk sa tànku ci amuñ nga jiital ngañ ndax isma xam na na def ndànk Boy Noto koy jéem a jumloo nga koy jéem a jumloo da koy tibbi da koy tibbi da koy tibbi ba wañ na ko mu bañ wañ na ko mu bañ wañ na ko mi ngi koy kott mu bañ daan na ko kott ma yet sës kott maa sës kott maa sës waaw ba pare jéggi ko kott yëg la ngañ kott gi ngañ loo xam ci kott yëg ngañ loo xam ci kott yëg ngañ loo xam ci kott yëg ngañ loo xam ci jërëjëf mbokku téléspectateurs yi yaakaar naa tey ñi ngi woon fii ci stade Maniang Soumaré euh, muy bés boo xam ne di bés bu rëy euh, ñu bëri fi combat yu bari yoo xam ne tey euh, combat yi biñ ko sifflé boobu ak léegi muy ay combat yoo xam ne bari nañ ko fi mbokk yi bu ñu ñëwee ci combat yu njëkk yi nga xam ne am na fi tey ci diggante booy saaw woon mu daan boy jaxaw jël bu set wecc Euh, garga numéro 2 boobu nag mooy drapeau Ibrahima Faye di directeur industriel SPIA euh, di sponsor bi nga xam ne moo ànd ak Fallou Faye beneen combat bi guy gi numéro 2 la woon ak garga euh, gis ngeen guy gi numéro 2 moo jël drapeau docteur Ndiaye di responsable APR Thiès commune beneen drapeau bi nag jotuñu ko bëree li ko waral mooy benn xale bi dafa feebar muy landing numéro 2 kon victoire bi ñu ko jox turbo 504 boobu doon drapeau bu Ndiéguène di coordonnatrice bu APR bu euh, euh, Thiès Nord Thiès euh, Nord di PCA bu Petit Train Bleu boobu nag Turbo 504 moom la ñu jox victoire bi combat bi ci tegu di professeur Demba Diouf coordonnateur APR Thiès Ouest kooku jam ceeri numéro 2 di setu Abdourahmane Diaye Falang moo ko jël ci Saalum Faye bu Ndufuk daan ko jël bu set wecc waaye beneen drapeau bi drapeau honorable député ki nga xam ne mooy Abdou Mbow bi nga xam ne moo jiite jeunesse bi Euh, di honorable député coordonnateur APR euh, Thiès Est diggante Dégol bu Ngoy la woon ak Baba Galle Baba Galle daan ko jël bu set wecc Baba Galle nag maru muusante la waxoon na leen ko waxoon na ma ko nee na ma père maa ngi ci 16 victoire tey laay signé sama 17e victoire signé na ko euh, muy Baba ngeen bàyyi ci xel kon mbokk yi mooy drapeau honorable député Abdou Mbow monsieur le ministre euh, ginaaw bi ñu seetaanee euh, làmb ji amoon nga mbégte lool ci fàllu li mu la indil tey ci li nga xam ne mooy ni mu la ko parrainé gis naa sax dem nga ba ne à dinaa jàppale fàllu fay ci làmb ji waaye fàllu jeex na xale yi bëre ko ci ngor bari ko ci jom bëri ko ci fair play lan ngay wax jeunesse su Thiès tey euh, maa ngi jëkk nuyu ñëpp ñi fi teew nuyu waa Thiès di am mbégte ci li ñu fi seetaan tey muy làmb ju am solo am ay victoire yu amul laami-laami leer nañ loolu c'est le sport le meilleur a ñeneen ñi dañuy fagarwaat donc di féliciter ñi am victoire di encourager ñi nga xam ni dañu am défaite mais di wax waa Thiès ni jog jog jot na ci suñu dëkk di leen indil nuyoo président Macky Sall di leen indil encouragement ak engagement président Macky Sall pour liggéey Thiès président Macky Sall engagé wu pour développer notre Sénégal yàlla def ñun ñu dëkk Thiès mage fi yàlla def ñu nekk ci wetam tey mu jël engagement pour liggéey Thiès ma am ci mbégte bu rëy rëy ànd ci ak samay xarit plus particulièrement ñi nga xam ni ñoo bokk drapeau bi tey ak ñi nga xam ni ñëw ñu dinaa ci citer honorable député Abdou Mbow secrétaire élu à l'Assemblée ñëpp xam nañu li mu liggéeyal président Macky Sall ba ñu àgg di wax ni bu Ndiagène fii la nekkoon moom it am na drapeau ku liggéey ci parti bi aussi ku ko wax aussi wax docteur Ndiaye mi nga xam ni bi mu liggéeyee bi mu duggee ba léegi ci parti bi mi ngi ciy def liggéey bu am solo di wax aussi ni professeur ba Diouf dafa dem États-Unis dafa am liggéey bu muy def pour Sénégal loolu moo tax teewu fii mais am na ñu ko fi teewal donc euh, madame Ndaw félicitations di wax aussi ni sama xarit Ibrahima fay bu tuubaatul amoon na ci drapeau aussi mais encore di remercier sama xarit ji fi nekk monsieur le maire de Kayar mi ngi fi monsieur El directeur mi ngi fi ak ñëpp ñi fi nekk ku lim sama xarit Paul Ndong jógee Dakar ba fii ñu ngi fi maa ngi félicité ñëpp di am mbégte ci li ma fi gis tey di wax waa Thiès ni jóg nañu pour liggéey Thiès amuñu ci benn tiitukaay amuñu ci luñ ci ragal bu fekkente ni yéen pare ngeen pour ñu liggéey Thiès mooy mbébétu président Macky Sall te engagement boobu la ñu am di ñaan. ñu ànd ci pour développer suñu dëkk développer Sénégal maa ngi leen di gërëm di leen sant. yow it am nga ci drapeau yi euh, xale bi nga xam ne mooy Baba Galla jël ko waaye tey xam nga mbir mi benn toogaay rek la euh, ginnaaw drapeau bi tey euh, lan ngay wax xale yi tey ci bëri bi ñu bëri tey. jërëjëf dañuy nuyu rek di sant ñëpp ñun suñu kàddu mënoon na bañ a jóg ndax le ministre des forces armées muy Augustin Tine su waxee rek. ba pare mënoon nañu joxe drapo yi ñun ñëpp ñibbi parce que waxam dañ ci tàbbal suñu bos ñun ñëpp daal di koy baaxee askan wi mais nag dañuy wax rek di féliciter ki nga xamante nii mooy Fallou Faye ndax loolu munuñu ko bañ a def ndax Fallou nag dafa nekk koo xamante ne nii dañu àndoon démb tey doog a ñëw te nit nag bu fekkee ne dañ wax nit ki kat ba xam am na kóllëre dañ naan ana ay nit démbam. te yàlla def na démb ñu àndoon tey aussi ñu continuer ànd ñu ngi félicité Fallou ci initiative bi nga xamante ni jël na ko di wax rek ne làmb bu bu ñu ciy ñëw souvent nit ñi dañuy wax ne non homme politique yi dañuy yàq xaalis ci làmb loolu amul parce que il faut ñu xam ne ñun du alal ju ñuy jël di ko def ci làmb parce que amuñu ko loolu mooy la réalité mais les sponsors ku ne xam na ne làmb bu taxawee sponsor moo ko taxawal moo tax dañuy wax ne sponsor yi di leen gën a ñaax pour ñu jàppale promoteur yu mel na ñoom Fallou Faye parce que loolu moom mooy l'essentiel parce nag aussi làmb dafa doon loo xamante ne nii lu am solo la moo tax parce que damay wax ne dafay am ay emploi yu muy générer te luy générer emploi ay ndaw di ci yëngu dañ leen war a gën a jàppale loolu daal loo xamante ni la message bu ñuy lancé la di nuyu waa Thiès yëpp di wax rek ne ñun dañuy gën a sant di gërëm la président Macky Sall parce que nag nit ku gërëmul nit doo gërëm yàlla te amuñu lu ëpp le président Macky yàlla dafa def tey mu nekk Sénégal nekk sunu njiit di liggéey pour réew mi te ñu am gis ne dafa am yitte yu wér pour biir Sénégal loolu moo tax dañu koy sant di ko gërëm fu ñu toll di ko gën a jàppale di ñaan yàlla Sénégal ñu ñaanal ko parce que am nañ yaakaar ne buy muccee Sénégal dina mucc. booy nattoo ñoo ngi lay nuyu. maa lay fay per damay jégalu avant tout gis nga boo gisee ma bëre si billahi wallahi damaa gaañu sama mbagg mii dafa summeeku barki alxuraan keroog alxamis moo tax ma bañ a yàq moo tax ma ñëw tey jii ñëw bëri si mais billahi wallahi nar moo na bëri dem naa bay woo promoteur bi ni ko seesal kanam adversaire man doo mën a ñëw moo tax combat deme nii tey jii mais maa ngi yéegul sama supporter yëpp wër na yàlla lii nii neexuma quoi wër na yàlla sama mbagg mi moo sumeeku maa ngi yéegul supporter yëpp nag xam nga di féliciter Isma mi quoi victoire bi yàlla na ko jég ak jàmm salaam loolu laa koy ñaanal. su ma ñoo ngi lay nuyu. maa kon bokk daal ci sélection régionale u am na njariñ waaw am na njariñ moom drapeau chef de la am na njariñ moom ndax ah bëri naa si ba dem ba final prouver cycle sama dëkk affaire yooyu tam mosuma see dem c'est la première fois ma dem si kon jox na la compétition jox na ma compétition bu baax kay tey lan nga yëg kontaan rek kontaan bu wér a di sant sama gaay yëpp di sant ñi ma jàppale ñëpp di sant Persir Diakhaté moom ma njëkk a tëgal ko baax di sant góor a seen Mour Sène waa gaas Dakar bépp yooru maar su ma demee bay takk ngeem di bëre Tafa Diop moo ma jàppale yóbbu ma ikil Lamp Fall maa ngi sant Anta bu baax oto lay taal def si gasoil di ma yóbbu fu ne. docteur Ndiaye euh, mbokk yi moom la ñu tëgg drapeau sànq moom it euh, ginnaaw làmb ji euh, la yan kaddu ngay sanni docteur Ndiaye.

di respecter ñi nga war a respecter félicitations. merci léegi indi drapeau bi ko nii jox voilà Isma voilà drapeau baa ngi. loo ci dolli loo ci sant yàlla rek sant ñëpp su ma doonee mbër rek Tapha Diop mi moo tax moo ma jëlee écurie yóbbu ma écurie Lamp Fall ma doon mbër barke yonent bi maa ngi koy sant baa di ko gërëm. La SPIA, société de produits industriels et agricoles dont l'usine de fabrication se trouve à Louga, spécialisée dans la formulation et la distribution de produits phytosanitaires, de semences, d'engrais et de matériel agricoles Pour vos semences, nous mettons à votre disposition des semences de marque Monarch. Pastèques, melons, tomates, gombo, oignons violets de Galmi et autres de haute qualité. Les fongicides Spicem C les nématicides pour le traitement des sols, les insecticides, les herbicides, Actélix Super et poudre SPIA pour la conservation des stocks, les engrais foliaires avec la marque Koda. Nous avons des partenaires de renommée internationale, dont Arista, Life Science. Et nous sommes leaders sur le marché local avec 50 magasins de vente couvrant le territoire national. SPIA au service de l'agriculture et du monde rural. SPIA VDN Ouest Foire, téléphone 33 869 32 69. 33 869 32 69 SPIA depuis 1980 certifié ISO 9001 kon jaaraama baykat bu fexe bi ak dundal